di gërëm euh, ñi ma fekkee plateau yëpp Fatou Dieng. Mm-hmm, nuyu Cheikh Diaw. Mm-hmm. di nuyu euh, sama xarit bi. <laughs> Aïssatou Diop Fall gëj nañ gisante depuis ah, depuis 2012. le grand combat. c'est vrai di leen nuyu di la sant di profité aussi di jàll. Babacar Touré. Mm-hmm. di ko jaal di leen ko jaal yéen. Mm-hmm. surtout waa presse bi parce que waa presse bokk nañ ci ñi gën a ñàkk. Mm-hmm. di ko jaal famille am parce que man sama xaritu boo père la j'ai on a parlé au téléphone y a même pas un mois. kon ku ma xam la. fekkee ay jotaayam. xam ban façon nit la. et loolu vraiment ñi moo tax ñu ngi koy jaal ñëpp di ko jaal Sénégal di ko jaal ñëpp. di aussi féliciter le président ci décision bi mu jël. parce que lii dafa baax parce que day permettre aussi nit ñi di gën a. dugg ci seen réew di liggéey pour seen réew. pour que ëllëg li Babacar Touré am ñii tax ci dool ne professeur yow it yaa ngi bokk ci parti bi di AJPADS euh, ànd ak Landing Savané xam naa bu fi jot gi moyen dinañ laal ci xuus ci question politique yi ak analise bi asset dafa ku jéggi ngeen téye ni seen mouvance présidentielle bi mais ci wàllu sant la ñuy wax parce que dañuy dëgmal tabaski. Mm. mbas mi nekk fii daanaka juróomi weer léegi. Mm. nit ñu bëri nag tiit ci ni nga xamante ni moom la mbir yi di yokkoo plus de dix mille cas daanaka ñaari téeméeri nit ñàkk ci seen bakkan. Mm. ngi koy wax sànq mag ñaa ngi dem kilifa yaa ngi dem ñu ci bëri ñoo xamante ni tamit um, daanaka bàyyiwul kenn mm-hmm. tiitaange am nag ci euh, comportement yi ak tamit geste barrières yi rawatina ci événement yi nga xamante ni déplacement yi day bëri surtout Dakar nekk épicentre nit ñi du fa jóge ci dem ci région yi am na lu ci ministre de la santé wax sàkku ci ñi ñu toog est-ce que jàpp nga ni dina yomb jërëjëf Cheikh je pense que euh, nit ñi ñu toog aussi du yomb parce que on est au Sénégal dañu dañu am nu ñu mel dañu am suñu culture. loolu yëpp loo mun munti xeex tamit da nga koy jël en compte kon toogloo xëy na dina jafe. mais lii yoon moom mu ngi dans son rôle mooy mu wax sénégalais yi lii yoon mooy ñuy toog. xam nga bi jëlee décision ne dañuy ubbi dama ne ñun bu doon ñun rek ñu xool suñu bopp saa ñu dugg ci benn système. xool suñu bopp en tant que acteur de la santé dañuy wax ne nañ tëj rek bu ñu ubbi tant que virus bi demul. Mm-hmm. wante nag dafa am yeneen yoo xam ne. faut aller ensemble avec le système sanitaire Lorsque nous montage nous aussi nous wax ci li mais li Sénégal pour dire la vérité euh, depuis cinq mois je pense que on a collaboré et je remercie la presse mm-hmm. parce que presse du rôle très sincèrement

ñëpp ci waroon dugal seen loxo. mais presse bi wax dëgg yàlla moi je le dis toujours plateau ma dal ma koy wax que la presse a joué pleinement son rôle. et je pense que ni nga xamee ne noonu la ñun waree joué suñu rôle parce que am na ñuy faj nekk au chevet des malades ñi ngi def seen rôle. ñun en tant que santé publique war a attirer l' attention war a donner les bons euh, les les bonnes informations. ñu ngi koy def presse bi bi ñu koy def kon nag population bi moo des. et population bi man damay am loo xam ne dama koy wax depuis depuis départ dama ne. suñu yolee feebar boo xam ne doomu jàngoro bi kenn du ko gis. ñuy xool télévision parce que bu doon sax bu yàgg ba nga xam ne amul télévision amul dara gisoo li xew ci yeneen dëkk yi amul problème mais ñuy xool télévision di gis li nga xam ne feebar bi mi ngi koy def di gis li nga xam ne mu ngi faagaagal réew yi réew yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole téeméer yoon kon ñun bu fekkee ne ñun gis nañ ne ngir ngi faagaagal béew yooyu nga xam ne am nañ moyen yoo xam ne amuñu ko te ñun ñu xam ne maladie bi muy maladie boo xam ne euh, virus boo xam ne am na ay moyen pour euh, bañ ñëw mais ñun dañu war a jàpp ci loolu defoon je pense que tey li doon yoon mooy tey waroon nañ fu ñu tourné gis nit ñi sol masque mais tey boo duggee ci réew dëkk bi. mais relâchement boobu sax lañ bëggoon a taxawee professeur gis nañu ne euh, il a deux mois de cela peut-être nit ñi farataalu nañ sol masque farataaluñu ko on ne sait pas mais li. mooy am na bërëb yu bëri askan wi solatuñu masque koo xoolee reportage bi nga xam ne def nañ ko sant ñi ci garage yi di tukki di dem mhm. mais taluñu masque xam nga luñ tal oto bu leen yóbbu seen dëkk mhm. donc xam nga kii tal oto di buxante kooku waxu la waxuma ay respecter distanciation sociale moom franchement c'est le cadet de ses soucis waaw mais xam nga loolu laay expliquer bi xam nga bu bu continuer rek cest à xam nga danga ne Euh, talu ko parce que jël oto lañ tal dem ci sànq bi may jël benn si sama dama ne dañu am culture am lu ñu mel mais nag loo am culture am culture boo gisee lu bees lo xam ne jaaxal na la mhm. te ñu ne la lii moo mën tax ba nga génn ak lu mu munti doon Lo xam ne bu la fagaagalee mhm. yow loolu ngay wuti ëllëg da nga da nga lor sa bopp da nga lor sa famille da nga lor ñeneen kon loolu dañ ko def mhm. benn boobu mooy benn xam nga euh, système de santé bi depuis le départ di ngi wax nañu fexe ba système de santé bi bu mu cest a dem ba nga xamné ne du mun jël malade so setlo légui même test yi ñi def dañuy def test ci ñi nga xamné am nañ symptôme. xam nga autant dañuy jël ñi nga xamné contact yëpp ci jël. légui non dañuy jël ñi nga xamné am nañ symptôme am dañuy jël ñi nga xamné ils ont des maladies euh, qu'on appelle les comorbidités. moy ñi am ay diabète am ay kii nga xamné virus bi du leen baal. parce que ñoñu loolu feebar yooyu ñuy yore mooy tax bu virus bu duggee rek dafay mhm. loolu moo tax muy fagaagal tey bi may ci gis naa ne on est à cinquante yu nekk dans les kii de réanimation mhm. xam réanimation mhm. xam ne réanimation y a un fort pourcentage de décès bu muy engendre kon su fekkee ne ñun fexe nañ ba nga xam ne les les mesures barrières là ñu ngi koy respecté. mais ñëpp xam nañ ne maladie bi. mais la faute ak kii bu fekkee ne respecté wu mesure barrière surtout pour systématique masque yi. loolu plus da ngay da da ngay def plusieurs pàcc premier pàcc. Hmm. man premier pàcc bi d' abord population bi am na ci responsabilité bu ngande. deuxièmement ñun en tant état aussi am na rôle bu ngande bu ñu waroon jouer boo xam ne dañu bàyyi aussi. da ngeen defut seen rôle. mooy xaaral non non non waxuma defuñu suñu rôle. dama ne. Hmm. xam nga aussi chaque situation da nga koy peser xool fa ñu toll. Hmm. mais li am solo mooy tey. Et moi, j'avais fait, d'ailleurs, euh, un mois avant, j'avais fait un article sur les masques, port des masques, etc. Mais d'abord, les marchés, le milieu public, il faut que les gens aient des ba nga dañuy image image dañuy mais quand nga bu des marchés, ils marché nit ñi solo ñu masque image bi ñuy ci subconscient population bi mooy que ne ah, affaire bi day dem. mais professeur loolu. mais loolu. Mhm. waaw loolu laay ñëw dama ne loolu. Mhm. li doon yoon tey. mais yoon fi parce que li tax ma la ko wax mooy y' a un arrêté du ministre de l' intérieur bi nga xamante daf ne lieu public yi force da nga war a takk masque ku ko deful daan ma la ci fekk lu tax duñ ko appliqué. est que xam nga ne ci rond point yooyu. parfois ñu jàpp ay bi xam mais est que yow am nga. toute euh, euh, li nga euh, force de l'ordre yu bay ba ñu nekk ci ginnaaw population bi côté nekk loolu mooy difficulté bi c'est-à-dire difficulté bi mooy dañoo amul aussi matuwaay yoo xam ne mën nañ chaque nit nous n'avons pas de policiers à côté. Il faut que nous fassions le tout pour que nous, mm si c'est une bonne en conscience, mm -hmm. maladie, nous devons nous faire un problème. Parce que ce qui est important, c'est que nous des demain comme Chine. C'est vrai que l'État a fait une autre ligne. Mais la population, si nous avons 1000 personnes, nous avons 1000 personnes qui ont fait un masque. Mais nous avons population ñoo wara ñoo jëk xamné que. Mm. ni pour sen bopp la. Mm-hmm. du luñ leen di forcer que ni lañu mëna arrêter cette aaree effectivement mais c'est c' est que euh, professeur communication bi tamit mo doxul. Mm-hmm. et puis tamit communication à à un niveau euh, euh, élevé bu fekkante né autorité yi nga xamné ñom ñoo ñoo ñoo euh takk leen masque ñom sen bopp ñoo dul takk takk masque <laughs> ñu leen di photo bëgg dem rek ma ma gën nuyu ndax ma sama mag la la première daa. Mm. fi dem ñeent def xaw mariage la. Mm. def saga mu baax def yefum yu baax. Euh, takkul masque takkaanewul masque waaw léegi kooku est ce que après ñun bu ñu bëggee takkuloo bu ñu bëggee takkuloo masque. Hmm. mais est ce que ñu dinañ ko takk duñ ko takk. dañ ñaan noonu moom hmm. xam. xamuñu importance su masque hmm. mesure yi xamuñu ko kon bu fekkoonte ne ki kii digle càngaay dafa sangu ba pare ba set mais keneen ku ku mu ne sangul da ngay sangu mais xam nga ay satu euh, dafa lay fekk si ci li communication de carré. c'est-à-dire que nous aussi on a toujours mes collègues nous aussi on a l'habitude vie nous alors que la population bi souffre, pour difficile il faut nga pour mais nous, on est parfois dans un virus de dafay répliquer ou virus alors que c'est pas ça qui est important ce qui est important li la maladie garage aussi une mauvaise communication avec les virus les gens n'ont pas compris nous sommes en guerre nous sommes en guerre nous sommes en guerre en guerre en guerre ba ngay def ay hmm. xam nga aussi

exactement parce que nit ñi la ñu war a communiquer nit ñi ngay communiquer nombre de dee nombre de réanimation nombre de ceci intéressé intéressé mooy feebar mi ngi fi ba léegi tabaski baa ngi nii di dem ñu ubbi ubbi nañu lépp alors que ñëw bi woon ña ngay confiné tubaab bi ña ngay reconfiné mais kon ñu fexee aussi ba am une communication idoine communication boo xam dafay wàcc directement fekk baykat bi fu mu nekk nga wax ko lu mën dégg mais ba ñu fi nekk di ay termes techniques ay ceci ay cas contact ak ay réanimation ak ay ceci nangam sangam loolu euh, moo tax virus baa ngi nit ñi a rey ay satu ay satu dama bëgg nga comprendre tamit euh, loo xam ne c'est important pour ko xam nga Donc bi se fait je suis parfaitement d'accord que les gouvernants les acteurs de la santé c'est-à-dire qu'il faut masque c'est ça la pédagogie par l'exemple très bien Vous savez, pour effectivement bi maladie les décisions yi ñu mhm. c'était de très bonnes décisions. voilà ça, ça c'est vrai. mais ben, da ngay xool aussi logique. Mhm. c'est-à-dire que bi c'était normal ñu tëj lépp. fexe ba nga xam dañuy chaîne de transmission ba nga xam ne maladie bi dina dugg. mais ñi muy dem du bari. oui et en même temps que ñuy tëj. Mhm. en même temps ñuy jàngal les gestes barrières di wax. je suis d'accord. et loolu vous ñu ko defee. en un moment effectivement parce que même ba ñuy joxe les vivres 19

mais fi mu ne nii ñun mënuñu wax Pic Ville fii la parce que on a jamais ba léegi peut-être defuñu ay enquêtes yoo xam ne dañu wër réew mi yëpp les enquêtes bi waaw mais mais xam nga comme ba léegi mars ba léegi waaw Aïssatou mars ba léegi cinq mois bientôt professeur Aïssatou xam nga chaque pays dafa adopté par rapport xam nga nit TFM bi day xool li mu mën mu adopté wu par rapport ak loolu mu mën fa lay yem xam nga boo nee da ngay def parce que virus bi mais mun nga defal kenn léegi test waaw ñëw mu amaat test xam nga loolu lan la la mën a may. Mm-hmm. pour nga xam exactement rek peut-être xaw na day nii ci population. ce qu'on appelle la prévalence est-ce que yéen maîtriser ngeen dëggantaan feebar bi. parce que tamit wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. Euh, euh, euh, il se pose ce problème daal de est-ce que ñun ñun ñun ñun ñun suñu ministère bi ah nga xam ne je veux pas tirer sur une ambulance mais c'est un politicien qui est qui est à sa tête bu doon yow yaa fa nekk wax dëgg fa yàlla ñu mën a na la ba yandoor mais un politicien. qui est là-bas professeur aussi day politique. waaw dama day politique ah la nekk waaye mais mais. mais mais xam nga nekk si ñii sax te comme ñun ñun journalistes yi ñu ngi fàttaliku suñu père yi ñuy déglu suñu nawle yi ñuy déglu mais kële politicien la léegi euh, man dama ba sans problème mooy ndax moom moom dañoo di saral fu fuñ fu ñaaw eh, bu xool actuellement Fatick rumeur bi daw moo tax ne maîtrise bi est-ce que maîtrise nga parce que Sénégal yi dañ jàpp seen bopp ne bu ngeen ñu nee am na nangami dee ëpp na ko am na nangami kaa ëpp na ko donc parce que tout simplement euh, euh, ngeen ngeen li ngeen di wane ak li li am réellement mais y a un un forfait abyssal. non non non Aïssatou gis nga Aïssatou. Mhm. gis nga Aïssatou. dernière man de waaw man man déjà déjà d'accord ma vraiment. Mhm. pour nga ne euh, euh, ka fa nekk. Mhm. non d'accord xaaral ma wax la non loolu question du ma d'accord non non non si objectif yow xam nga ñu. waaw ah, xam naa la damay ah, objectif mais li ma bëgg a wax mooy. si nga bokk tax les techniciens ya fa nekk. ñu si bari xam naa leen. et ils sont en train de travailler mais moom il coordonne. et il donne les directives mais mais non non non non non non non non wax dëgg yàlla xamuñu la affaire santé yi. affaire santé dafa dafa ko technique ñu c'est vrai affaire santé du ay affaire milimètre ma ci santé santé du ay tap yëngal santé da ngay jàng xam nuñu fi fi fo rof pikiir mais kee max moo ma yem danaa ko la mi max moo ma yem je vais te dire les meilleurs ministres na ñëw ci politique bala moo jeex mais mais les meilleurs ministres yi ñu am santé en général c'est des gens qui étaient pas dans mais ci tabaski mais man bëgg naa ko laaj ba léegi professeur ci tabaski parce que gis nañ vox populi wax ko ne bi ñu woyofalee affaire yi ba léegi presque mbir yéeg na ci ci progression ñi ngi ci tabaski gi ba léegi ban conséquence maanaam déplacement yi la mën a am déjà ci évolution maladie bi non li ñu mën mooy mhm. d'abord sur sécurité bi ñu insister mhm, mhm. en tout cas xaw ma naka lañ ko mën a corriger mais il faut ñu corriger au niveau des gares routières partout mm-hmm. fexe ba nga xam ne dañuy limiter mm-hmm. les dégâts mooy ni ñuy toogee amul masque amul dara mm, kooku au moins il faut ñu def ko mm-hmm. pour que propagation bi mën a wàññi il faut aussi ñu informer wax ak nit ñi damay siif wax ak nit ñi gaaw gaaw damay siif da temps bi amul dëgg yàlla damay siif bi dana dana jaar professeur 2024 AJ/PADS day am kan ndaa waa wala déet non ñu ndax ndax yéen fa ngeen far yéen yéen yéen yéen yéen waaw moo tax may la boo ko tontoo ñu dem maroon bees ngeen yéen xam nga ñun dañu nekk ci maroon bees ngeen yéen dañu nekk so duñu maroon bees waaw solu leen ko sa bees ànd ak mhm. maroon bees waaw ñoo bokk même coalition bakañ bakañ di waxtaan bokk ci ñi nga xam ne aussi mhm. ñi ngi participer ci décision waaw mhm. vraiment honnêtement euh, je suis désolé